asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñu ñuy topp ci internet bi rawatina ci seen chaîne bu muy Serigne Djily TV mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziyaara ñu ngi leen di baal xaq ñu ngi leen koy baalu ñu ngi leen di ñaanal jàmm ak tawfeex ak saadatu daara yi nañu koy sàkk ci yéen mbokk yi bis ne démb ñu ngi doon waxtaan ci mbët te ñu diggoon leen tey jii ci kàttanu borom bi subhaanahu wa taala ay takk-takk ci ay géntam moom nag ay géntam ñaare li ci ëpp benn tawat lay doon wala liggéey wala rab ci xam boo géntee mbëtt la xasu ak fu mu mën a doon ci saw yaram jàppal na feebar lay doon bu dëgër bopp bu naqaree faj te lii ma la ciy wax bari na lu muy daje lool moo xam mu laxasu la sa xar kanam moom it danga fa am tawat ju naqaree faj moo xam mu laxasu sa tànk moom it kazalika danga fa am wala feebar boo dëgër bopp naqaree faj moom daal ba tey foo am feebar nga génn fa mbëtt la xasula moo xamal ne jooju du yomba wéral du yomba faj bu doon say ween la day metti nga gént fa mbëtt la fa boo deful nànk dana doon cancer wala tawat joo xam ne danga ci sonn lool mu doon sey bët nga gént bët laxasu la moom boo deful ndànk danga gumba maar day masi ku gént ñi tegal la ndawalan mbëtt nga koy lekk fi ne ndawalam noonu mu baaxe ci zahir bari njariñ noonu la bone ci géntam ci li nga xam ne jot naa koo xam man boo géntee du ko lekk benn euh, ak njabar la ñu lay def gu bona bon moo xam da nga tëdd feebar gént lekk ko moo nga xam ne ak njabar la tawat ju dëgër bopp lay doon moo xam tëdd googu gént di ko lekkit moom it séentul feebar bu métte wala ay paxe ku gént sa kër ay paxi mbët benn ay ay ay ay maana ay def-def yuñ fa def wala rab wu dëgër bopp wu fa dëkk boo doon listixaar lu mel ne kër goo bëgg a jënd wala place nga gént fa ay paxi mbët wala nga gént fa mbët ci boppam boo deful ndànk de boo ko jëndee da ci am gàllankoor bàyyi gay gën wala boog nga def fa ay toccal yu am solo ba ku doon listixaar aw yoon nga gént ay mbët moom it boo demee da am gàllankoor boo doon listixaar lu mel nit ab sëy nga gént euh, mbët wala nga gént jigéen ju ànd ak bët xamal na rab bu dëgër bopp la bu doon ku góor kii lan nga gént ku góor kiit nga gént mbët maanaam bu doon li saxaar borom kër nga gént gis mbët wala boo nga gént gis ku góor ki mbët mu lu mel ni mbët moom it xamal na benn am na rab bu dëgër bopp wala feebar bu muy sooxaale yooyu mën a wax nag nañ ci bàyyi sa xel bu baax a baax ba tey jàppal ne bu fekkoon ne da nga doon sangoo gàllaaj moo xam da nga doon sangoo loo xam ne day dindi gàllankoor ci sam yaram wala moo xam da doon faj lu mel ne wàllu rab wala lu mel ne wàllu liggéey nga gént de nga gént ray mbët xamal ne loolu gàllankoor buy deñ la bu doon def def la dañ na euh, bu doon rab la it xamal ne bu dañu tit mi ngi wàññiku waaye rab moom ñaare bu fekkee dafa dikke mbëtt moom loolu rab bu dëgër bopp pour nga tàqali ko borom dana jafe xanaa wàññi yàq gi rek waaye pour ngeen tàqali leen dana jafe lool. ba tey na nga jàpp ne bu fekkoon ne da gént gis ay mbëtt ci garabu guy loolu xamal na ay tuur la loolu moom xañ na say maam wala say maamaat ñoo amoon ay tuur yoo xam ne arab ya fa dëkk melaw woowu lañ yor ci bàyyi sa bu baax baax ñu lay feeñu. kon mbokk yi ay takk-takk la yu ma la indiloon ci wàllu mbët muy yu am solo nag yoo xam ne bari na lu muy dajaloon nga bàyyi ci sa xel bu baax a baax buñ la ko wala yow si jëm bopp nga gént ko nga teel di cay jóg xam ne mbët moom ñaare loolu ñu ci wax bari na lu muy daje kon ngay wéy di abonné ci chaîne bi di ko tasaare ndax bokk na ci li koy yëkkate ak li koy dundal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.